waaw mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp du ñu fi ñëw nag ba ñibbi euh, te it taxaw ñu ñu taxaw ak si Abdoul Fattah Pouye mii nga xam ne ci kër gi la nekkoon nekkoon ak si Abdoul Fattah ñu tuddee ko ko mu sasoon ci wetam daan ko tarbiyewu daan ko liggéeyal waaye doo doonoon xaritam xamoon ci moom ay jikko yu bari jànge ci moom lu bari tamit yàlla dogal mu àndaat ak Cheikh Moustapha mii waaye taxawal fi daayira boo xamante ni daayira bu mag la ñu di ko wax Wildaanul Wildaanul Xuldi Wildaanul Xuldi ku ne xam leen seen taxawaay seen njàng mu neex seen pësteef waaye sasoo fii ci kër si Abdoul Fatah waaye rawatina waa Touba gépp xam leen ba feneen fu du Touba fépp ci Sénégal xam seen taxawaay ak seen njàng si Abdoul Fatah ñu taxaw ak yow fii fa seeni laa laaj rek sa xarit ba Cheikh Cheikh Abdoul Fatah Mbacké yan qualité ak yan jikkoo nga ñu mën a euh, nettaleel taalibe yi ñu mën cee jànge man cee amaat ab taxawaay boo xam ne képp ku fi jóge bàyyi woo fa da nga ko mën a yóbbaale waaye rawatina jëwrinam jii di Cheikh Moustapha mi nga xam ne nii moo ko fi nekkal waaye nekkal ko fi nekkin wu rafet kenn ku nekk naw ko ci taxawaayam ci yitteem ci pas-pasam ci jàpp njàmburam waaye ci nekk ca la ko rek santan kon Cheikh Abdoul Fatah ngi lay laaj daal ñoom ñaar ñooñu yan qualité nga ñu mën a wax taalibe yi ñu mën ko caa jànge ba kenn ku nekk soo ñibbee mën ko yóbbaale. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu taalib yi ñu ngi leen di ziar baax di leen sant di leen gërëm di ñaan suñu borom subhaanahu taala ci màggal daaru xudóos gi di màggal Seexuna naa Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ba suñu boroom mayee ñu fekke ko di ko màggal ren di téeméer at yi ñu ñaan yàlla suñu boroom def luñ ci jàng ci alxuraan def ci salaatu ala nabi jàng ko ci xasa xasida Seex Ahmadu Bamba yi yàlla suñu borom te làqal ñu ko fa yàq egut eh, sëriñ ngoom laaj nga ma loo xamante ni xam naa dañ ciy jéem a waaslu ak rek waaye loola xam naa ne danañ ci lot wax lool ndax dañoo jege woon lool doon suñu waajur du suñu sëriñ di suñu papa di suñu lépp eh, ba tax na Cheikh Abdoul Fatah moom wax ci moom dafa yomb ndax képp ku ko jege woon wala nga jaxasoog moom benn melo bi benn qualité bi moom rek ngay gis ci moom mu nekkoon nit koo xamante ni jullit àqan la woon di woon am murid saadix di woon ku baax ku yaatu ku woyof koo xamante ni ku bëgg doomu aadama te bëgg bëgg jullit ñëpp doon koo xamante ni euh, baat boobu ñuy wax ci alxuraan ne waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafaraqu baat bu ko ñoroon la ci ci jëflanteem ak ak doomu aadama yi ci jëflanteem ak bépp taalibeem boo xamante ni mu ngi koy jëflanteeg euh, mbokki taalib yi nga xamante moom la suñ boroom booleeg moom boo tax na baat boobee moom la suñ tubaa doon wax ne wala tuhaadu man raaytum fa yoxruju laa ilaha illallah loolee suñ Abdou Fatah moom la doon doxe moom la doon digal ay taalibeem ay dongoom euh, boo tax na moom wax ci moom dafa yomb ku bë ku bëgg lu baax la woon ku bëggoon kuy xeeñcu lu baax la moo taxoon kuréel gi bi ñu demee ba sos ko nga wax ni muy kuréelu wildaanul di moo ñu jox tur wi bañ demee ba egg ci moom wax ko ne ko dañu fee sosoon ab kuréel di jàng xasida yi mun a def ngeen lu ko mate daal ne ndaw bu tolloo ci ay ati ndaw il faut que yaramam def dara il faut nga yëngatu def dara mm-hmm. léegi loolu nga xamante nag day ne ci yaramam ngir mu def loo ko dara ngeen ngeen am ne ci xasida yi loole rek moo ko mate daldi ni ci ñaanal daal di daal ne ma bu subaa dinaa dinaa xool tur wu ma leen tuddi ndax ba may bañ fay dem dañ ko dañoo yoroon bikk ak fooy jox ko ko ngir mu jox ñu tur daar daar mu wax ñu ne ñu conseil ñu waxtaan ñu xelal ñu xalaatal ñu nañu tur wi bu ma xëyee danaa ko xool jox leen ko bañ xëyee la bin turwa jox ko suñu jëwriñ ju fi nekkoon di abdu Fatalo muy kuréelu wildaanul xuldi ñu cay nekk ba jamono ji kuréel gi am nañ ah, kuréel kuréel bii nekk ci kër gi fii di fi répété am nañ kuréel 1 ak 2 ak 3 mm-hmm. am nañ kuréel gi ci sosuwaat ci biir Touba jimbu soobe booba itam am na kuréel 1 kuréel 2 ba 3 itam am na fa am na ndakaaru itam ñu fa nekk ñoo xamante ni danañ fay faral di daje ci ci wildaanul xuldi lañ sofu ba léegi ñuy ay xale yoo xam dañuy yëkkatandoo di tëggandoo di jàppalante ci fànn yëpp di ñaan yàlla na suñu borom subhaanahu wa taala ci baaxub Serigne Touba jàppale ñu ñu sax ci ci jaamu yàlla ak jàng xasida yi ci fànn yëpp. Cheikh Abdou Fatah nag am na lu ko ñoroon lool ci àndub jullit ñi képp ku nga xamante ni bëgg nga xam Cheikh Abdou Fatah ay jikkoom aku ku meloom na nga dem boo ko recherché ci YouTube da ko gis boo laajee son bi dañ la ko jox. bi Cheikh Mouhamed Mbacke Taïf jógee hmm. Cheikh Abdoul Fatah toog xalifa hmm. toog Taïf hmm. jumaayu Taïf ba mu tàmbali ko ba mu eggee ba mu di ko ubbi waxtaan wam fa def ci àndu jullit ñi ci benn jullit ñi maanaam lam ca la nga xamante moom la ca leeral lépp loolee mooy jikkoy Sëñ Abdou Fatah loolee mooy melam ci jëflanteem doomu aadama ak moroom ja ci jëflante murit ak murit bi noonu la Cheikh Abdou Fatah Mbacke Eh, eh, mel jikkoom moom la wax foofe boo tax na ñu ngi koy ñaanal suñ borom subhanahu wa taala fam ne yàlla na suñ borom mook Cheikh Mouhamed Mbacké Taif yàlla na suñ borom yokk seen leer ci lim doon baax def ci lu baax lim ñu yare woon moo tax lam ñu yare woon ca lañ fas yéene teg suñ tànk muy ci njub ci jubal ci liggéey ci jaamu yàlla ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Moustapha moom Cheikh Abdoul Fatah mi nga xamante ne moom nga ma wax ne ma laaj nga ma ci mm-hmm. ba Cheikh Abdoul Fatah jógee la tax ñun jaaxle ñu tiituñu mooy dañ fee ñëw l'an 2000 to nekk nañ fi lu mat ay at. Mm-hmm. ñu fekk fi Cheikh Moustapha Abdoul Fatah mu nekk fi moom it taaw bu mat taaw ndax bi ñu fi nekkee ak Cheikh Abdoul Fatah moom muy taawu Cheikh Abdoul Fatah moom ci boppam ab dongo la def boppam. Mm-hmm. moom ci boppam wanewut ne Cheikh Abdoul Fatah mooy sama mooy sama waajur boo tax na dongo yi fi nekk. dama leen ni teg lii la lum la bëgg a def loo sax dalay lay tàggu ne la ndax sëñ Abdou Fatah def loowu la dara wala jëwriñ sa jëwriñ def loowu la dara mhm. bu bëggoon kafe sax eggoon na ci sëñ sëriñ eggoon na ci mhm. bu bëggee eh, segglu kafe sax dalay laaj mhm. dalay lay woo ba nga ñëw mu jox la xaalis ne la jëndal ma kafe seggal ma ci nga xamante ne bi fi baayam nekkee soxlawul dara bëggul dara lu baayam lu baayam yilif sax bu ca bu ca jëfandiku sax maanaam day euh, am nu mel ci moom mm-hmm. moo tax nga xamante ni jikko yooyee root na ko di ko doxe te waajuram Cheikh Abdou Fatah jóge ba Cheikh mm-hmm. Abdou Fatah jógee ma nekkaat feek moom lu mat ay at mu door maa ñaanal ma dem ca waajure mm-hmm. li ma nekk ak moom ay qualité yi Sëñ Abdou Fatah doon doxe gis naa ci ay qualité yi Sëñ Abdou Fatah doon doxe yëpp yoo xamante ne ci jëmam lépp muy Cheikh sax moom itam mu bëgg lu baax bari yërmande te bëgg taalibe te yërëm leen nee na moom social lu ko ñor la too nekk naa feek moom ay taalibe yi magi taalibe yi am ñu wéra di ñoo xamante man mii la ma booleek ñoom ma dem jël ab ambulance jël leen yóbbu leen hôpital moom mu di leen faj am na ci boo xamante ni valeur deux cent cinquante mille la ma jox mhm. man maa ko taxaw di ko fere ba deux cent cinquante mille lay jeex ma ñëwaat ci moom ba koo ko jóg ba delluwaat ci moom taxawaay yooyu moom la am ci biir taalibe yi képp ku nga xamante ni yëg na sa yitte wala man ma wax ko ko dana ca taxaw te man mi itam maa nga ca ca waajur ya waaye fu ma toll mu ngi may woo di ma nemmeeku lu ma ko wax ne ko taalibe yenn ci barab sàngam lii ak lii dana ca dox dana ca wax mu ngi taxaw ci taalibe yi ci fànn yëpp moo tax daayiratu xidmatul islam bi nga xamante ne Cheikh Abdoul Fatah moom la ko mbokki taalibe yi feete woon Dakar ñu mel ni Baye Cheikh Mbeng ñoom ay ñoom siñ jaaji Mbeng ak siñ Mor Gay Mor Mbay ak ñoom siñ Cheikh Cheikh Cissé baay mhm. Baye Ousseynou Ngom mhm. sa waajur yal na yàlla yokk leeram oyofa suuf ci kawam ndax kenn la woon ci siñ Abdou Fatah ànd nañu lu ay at yoo xamante mat na juróom fukki at mhm. bu ko ëpp muy kenn woon ci siñ Abdou Fatah moo tax boo doonee eh, doomam ñëw ñu ànd lii li loolu rek a ñu war ñu sàkk woon ci sëñ Abdou Fata mm. ab daayira boo xam dañ koy dañ ko koy jàppale ci màggal Daaru Xudóos gi mm. sëñ Abdou Fata gàntalan gàntaloon na leen ko ne leen fédération Serigne si Ahmad Mbacke Gaïndé ma gi di wilaaye ñëpp nañ ci dox waaye ñooñu ne koon dañoo bëggoon rek di la ci jàppale addiya joo xam lu jëm ci màggal Daaru mu tudde leen daairatu xidmatul islam wax leen ne leen nag saa yu wilaaye fédération bii di wilaaye Serigne si Ahmad Mbacke Gaïndé Fatma soxla nañ dag yitte ya yëpp te dem ci lool ñuy doxal di doxal ba mu jóge fi daayira xidmatul islam boobu ñun taalibe yi ñu àndandoo waat ne daayira boobu dañ ko bëgg a dekkal samp ko ci fépp fu nga xamante ne taalibe Serigne Abdou Fatah Mbacke Gaynde Fatma ma nga fa ci biir Sénégal ak bitim réew mhm. daayira xidmatul islam boobu ne ci ginnaaw Cheikh Moustapha moom Cheikh Abdoul Fatah ak i rakam Serigne Cheikh Ahmad Mbacke Gaynde Fatma ak Serigne Mohamed Mbacke ak suñu waajur soxna Maskuratu Mbacke yàlla yàlla yàggal daayira xidmatul islam boobu am na am na dakaar sëriñ seex Mbeng moo ko jiite ak eh, sëriñ Mor Mbay ñoom am na Touba gi Baye Cheikh moo ko jiite am na Bambey si sëñ Moussa Faye moo ko jiite ak yow mi am na am na Tiwaawoon itam sëriñ mhm. Serigne Xaadim Ñang Bamba ñaan moo fa moo ko jiite mhm. Bambey séeréer sëñ Ablaye Ngom moo ko jiite ak i rakkam gaat itam Baye Saliou Sarr moo ko jiite foofu mhm. am na taayif moo Modou bu Sisek moo ko jiite ak ñoom Dame Touré ak ñoom Thierno Fall ñu ngi leen di sàkku ñu gën cee taxaw baax mhm. ndaam nga ca taayif itam Serigne Mbacke Diop taayif di ca ndaam ak Serigne Lo ñoom ñoo fa féete mhm. danañ fas yéene ñun ñëpp ñu def benn bolog mhm. àndandoo ne ci ginnaaw Cheikh Moustapha mu Cheikh Abdou Fatah Mbacke Gaynde Fatma jàppale ko ci liggéey bi nga xam te moom la ko Serigne Abdou Fatah bàyyee boo liggéey bi du laal suuf incha allah incha allah loolee lañ bëgg ci loolee lañ fas yéene nekk ndax ab ab murit moom du wàcc ba ba ngay wàccub liggéey ñu jël la taxaw la yóbbu la mm-hmm, mm-hmm. ca barab yi mm-hmm. kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan kuréelu xasida yi ñu war a àndal liggéey bi ca kanam tuuti incha allah kuréel yi fasantikoo la ñu fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi te ñaan suñ borom nangu lépp incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jàngi nañ ci lu bëree bëree bëri euh, may fàttali ne ñoom ñii ñoo fas yéene fanaane fii tey. mook daayira waawil daanul xul di yëpp ba asamaan set di jàng xasida waaye jànge nañ ci Cheikh Abdoul Fatah jikko yu bari waaye jikko yooyu nga wax ñëpp xamaat nañ ko ci Cheikh Moustapha ndax wax nga xam nañ ci ne moom de sasul woon kenn sonalul woon kenn xatalutoon kenn te amoon na yërmande ci boo boolem taalibe yi amoon na yërmande ci taalibe bi nga xam ne sax daan ñëw sax nuyu ko mu gis ne taalibe bi kat day mel ni daa am lu ko dal ba day fexe ba lijjanti fu ñu ko faje waaye day xool ndax taalibe bi xiif na xool ndax taalibe bi mi ngi ci ay jafe-jafe moo tax yaataloon nañ ñëpp amoon yërmande ñëpp loolu tamit la ñu gisaat ci Cheikh Moustapha mii ndax al ibnu sirru abihi te wallaahi loolu rek a nekk ci moom kon ñu ngi koy ñaanal yàlla taxawu ko kàttanal ko ba liggéey bi nga xam ne moom la song muy liggéey sa Abdul Fatah bi yàlla dëgëral ko kàttanal ko ba may ko ci lu kawe njortam kon mbokk yi ñu ngi ñaan yàlla ñu fekk ko déwén te fekk yi wi gën a kon si Abdoul Fatah kontaan nañu bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf.